tabaski jotee waaw ba nu rendi xar ya ba ñëpp ñaanalante keroog ci bis ku la tooñoon nanga ko baal alo alo waaw waaw gan la Ibrahima ah Ibrahima na ngeen def waay Ibrahima Ibrahima waay waay waay na ngeen def na ma rek alhamdulilah naka waa dëkk ba maa def ndara alhamdulilah arikala ah sa numéro bi yow dama ko laa xàmmeewul ah anta yaay maa mi ngi jàmm waaw waaw alhamdulilah alhamdulilah ah ñu ngi ci wàcc waaw ñu ngi ci wàccaay de xam nga rek xam nga sa nijaay moom tës tës rek tës waaw te eh, tabaskiran gi moom far yàlla ya daf maa daf maa tegum natu waaw daanaka ni ma lay waxee démb ci heure bii nii si tàkkusaan heure bi laa toog sama buntu kër jënd xaar dugal ci biir rek dugg génnaat ñooñu ah affaire affaire sa sa ñu sàcc ko nii nii ma la ko waxee kañ wallaay wallaay man sax sama bopp image xaw ma loolu nu mu fa demee man waaw du du du seetaan du seetaan xam nga rek dëkk bi léegi dafa tas waaw te yow tamit boobu ba léegi maa lay déglu te tabaski da daan fukki fan da nga ma daan woo daal daal di ma defal affaire waaye ren moom ñaari fan gannaaw suba ah ah yaa ngi ko yónnee ah ci xam naa waa du dugal dugalal foofu dugalal foofu du ñàkk koñ bu ma nekk nii fii nii am fi boutique bu buy war a rëtee la xaalis dugalal foofu waaw kay jërëjëf jërëjëf ni nga ko daan defee defaat defee defaat nga ko waaw kay waaw kay waay jërëjëf waay nuyu ma sa bu baax waaw ne ko sama nijaay nga la yóon mu ngi lay nuyu bu baax maa ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf waaw kay pa

lo xew cent franc mo génne café la yow looy dem ci dellu si nii looy looy yëngatu nii sa bi bëri bëri bi cent franc laa soxla ji dama bëgg jënd café ak benn kii nii takk sama joint yi nii dëgg zoo yooyu ngeen war a bàyyi zoo yooyu moo lay yëngal ngay dama ko ñëw lan laa lay xamal topp ma fële laa wax bu ma fontoo ngaan mat botoo gis yéen bàyyi leen nii lii da leen yàq day dofloo da leen dofloo per génnal baxa bi boo baax baax lu nekk ci poche bi fii père ngeen doon ko baax. yéen yéen yéen a ma gis ma yor ma yor ma yor. père bu ngay jàdd fee yaa ngi yor ci sa portefeuille calpe bi. yow loolu foo la foo ah, loolu la. père man man déggu ma tey de père. Ah, fayu ah fayu. fayu ko démb mu ma ma damay fayu kañ. damay fayu kañ. ah ah. Thank you. nyanyinya kan am na ku ma dóor lagi? gannaaw ba mu kan la ci nekk na rek waay waay waay waay waay mënoon na portable gañ mënoon sama kor door nañ ko roq bi dañ ko war a dañ ko war a sakk ba mu fees ngeen di fi jaarati roq bi dañ ko sakk ba mu fees ay camion xel lañ ko war a def ba mu fees ngeen di fi